di sant ñëpp dégg la ci nasaraan la parce que université lañ ko tuddee mu nañ ko wax ci wolof mais jàpp naa ñi fi nekk ñëpp dégg nañ nasaraan Saalum mooy gox boo xam ne ki jàngul tubaab sax xelam na ñaw na ñaw goo xam ne rek boo waxee mu dégg xam mu a comprendre li ngay wax maa ngi di gërëm di leen sant di soññ ñëpp ci wàllu yoonu naataange yoonu liggéey bëgg sa bopp bëgg sa gox ku bëgg sa bopp di nga bëgg sa gox ku bëggul sa gox bëggoo sa bopp bëggoo say mbokk bëggoo say ñoñ te jëf jooju nag mooy mottali wàllu koom-koom ku nekk ni jàpp ne maa ko moom bu ñëpp di bu fukk di gas fukk di suul pax du fa am pënd muy bari bu ñuy tabaxi TER tabaxi berte tabaxi autoroute à péage tabax ay sphère tabaxi mairie defar ay pavé defar ay carrefour defar ay rond point defar lu ne ay hôpital gëwuma ne nit war nga am loo layee loo joxoñ mer bu futtu bu la war a tax li ñëpp tabax bokk ko nga toj ko walla nga yàq ko citoyen mooy kii defar di aar fi may jeexale mooy ASC yi na ngeen taxaway taxawaayu kaaraange koom-koomu réew mi ak moo moomelu réew mi fi ngay fajoo woto bi ngay dugg di fay Ablaye soo dugg ci Aliou soo dugg ci boo xoolalee ñu doom taal ko gaañ nga sa bopp ka koy jëndaal lam koy jëndee sa lempo la lam ko jënde woon sa lempo la lam koy defaree sa lempo la foofu lay jeexalee fu ngeen xam ne budget mooy boo demee léegi jënd daamaar la nga cay teg lempo la boo jëndee fay courant sa facture lempo nga ca boo fayee ndox lempo nga ca yooyu lempo la ñuy boole ak li ñuy jëggaane ak li ñu may def ko sàq njëlu Sénégal di ci comp ka génne defari yoon defari courant defari ndox defari lépp ku ñëw yàq ko gaañ nga sa bopp yàqal nga sa bopp doo doo doomu Sénégal bëggoo Sénégal kon nag ku doyee di ba bëgg a yàq ku doyee di ba bëgg a yàq li ñëpp bokk nga war a am fulaay ñàkk loolu ne duma la gaañ duma la xas mais li ma moom di ko jëriñoo doo ko yàq soyez les vigiles de la défense de la protection de nos biens publics. Ce qu'on appelle les infrastructures critiques, ce sont des infrastructures qui démolissent, mettent tout le monde en péril et nous exposent dans la faiblesse, dans la misère et dans de gros risques. Protégeons cela en apport aux actions permanentes et héroïques de nos forces de défense et de sécurité que je rends hommage. On ne peut pas parler de citoyenneté active pour le développement sans célébrer nos de, nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers et nos militaires, qui du matin au soir, quand nous dormons, quand nous veillons sur nos affaires personnelles, sont à nos services, sans répit, avec tous les risques et périls. Je vous remercie votre aimable attention.